sëriñ Sohibou Mbacké nee na fukkeelu guddi gi ak benn ci weeru koor ku ca julli ñeenti rakkaxa bu ci nekk fatiha benn yoon ak suuratul xadri te mooy inna anzalnaahu fi laylatil xadri juróom-ñaari yoon ak suuratul kaafiroon te mooy xul yaa ayyuhal kaafiroon basaaru jeex moom it juróom-ñaari yoon ak suuratul ixlaas yi mooy xul huwallaahu ahad basaaru jeex moom it juróom-ñaari yoon بسل ملايم واخ لا حول ولا قوة إلا بالله الحلي الحزيم جرم نار فكيون جلت يونا تبي صلى الله تعالى عليه وسلم جرم نار فكيون ديس نكو جيجل بكارم ينجك أك يمجو تا آية بكي ديس نكو جبنل تيابي جامو يلا أم أت تدانا ملنا يتم كو غريل جني جام سرخي جني دينار reggal junni ñu xiifital woddu junni ñu rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jéggalul yàlla boromam tabaraka wa moo xam lu wow la wala lu tooy te dees na ko musal e, ci balaa yi ak fitna yi ak ci mettitu dee te dana tàbbi àjjana te kenn du ko xisaab yaa dañuy saa borom dimbali fayal ñu sëriñ Souhaïbou barkeb Seex Ahmadu Bamba